match bi di ñëw contre Burundi euh, Malawi dañuy joué ak ñoom fii joué ak ñoom seen dëkk après mun nañoo wax ni kenn du dem ci match ne bugguma gagné wala damay dem pour am défaite wala match nul à chaque fois bu ñuy dem joué match dañuy am confiance pour gagner match mais après du mun nañ am nañ problème mu dugal bi yu bëri offensivement Et après ñun ay attaquant lañ yàgg nañu joué attaquant saa ñu amee action boo xam ne dañ koy bëgg a dugal mais après des fois ñu raté mais après nañ liggéey ci loolu pour euh, jéem a gagné prochaine match yi surtout euh, match bi di ñëw à domicile. du ma ne xaw ma nag ñeneen mais am na ñoo xam ne ñu ngi koy waxtaanee suñu biir xam nga ndax xam nañ ni match am importance la même match yu yu ñu mujjee joué tamit même bu ñu gagné benn am benn euh, match tamit match yoo xamante ni ñu bëggoon a gagné amoon confiance gagné match yi mais après loolu la yàlla dogal mais match yi di ñëw nañ def tout pour jéem a gagné. pour assurer qualification coupe d'Afrique Inch'Allah. après le problème du système moom après le coach moi décidé. L'équipe équipe nationale joué en 4-3-3 même euh, presque système yëpp jouer euh, naa en donc on année mon adapté système Après, après coach moi décidé le système bu jouer. joué. ak euh, des fois gars joue avec le système pour maintenir. ni mun nga joué gagné des fois nga joué ci qui football dafa doy waar mën ngaa indi système boo mënti indi tamit boo waree perte da ngay perte boo waree gagné da ngay gagné après mun naa ne benn côté mun naa d' accord ci benn côté mun naa ne ndax attaquant buy joué ak muy sa club équipe nationale da ngay bëgg tout le temps di dugal attaquant pour loolu la pour nga dugal mais bu leen jàpp ni même match bu amee ni bu ñu dugalul day doon lu ñu neex mais lu ñu metti lay doon mais duñ ko wane ci terrain naan lii mett désolé loolu dañ koy denc xam ni daf ñuy metti match comprendre mais ñun lay a metti waaw concurrence na fi donc euh, na fi muy ci attaque bi défense bi ci milieu mais après ñun ab famille même bu fekkee ni man wala Nico wala wala même ba fi Famara

comprendre supporter bien benn côté ndax euh, boo dee xool gëj nañoo gagné à domicile donc benn côté mën naa leen comprendre mais après du question ñun dañuy ñëw def lu ñu neex ci terrain bi tout le temps on est à à chaque fois bu ñuy ñëw di jouer dañuy am confiance pour gagner am nga pour bégal wa dëkk bi bégal supporter rek ñëpp donc euh, après match yi di ñëw dinañ def le maximum pour jéem a gagner de deux matchs yi allah.